saa su nekk tey nag ñu ngi fii ci Colobane sorti autoroute bi juste euh, jëyee nag ak ba moo fi daal di dal euh, gis ngeen oto bi comme niñ koy jëlee nii en image bi bi moom moo daal di daw saaraan rek euh, daal di ñëw fii nga xamante ne ci marché bi la daal di fi rey lu tolloog ci ñetti nit pour l'instant ñetti nit ñi nag am na kenn ku góor koo xamante ne jaaykat la woon fii ci marché bi di jaay li nga xamante ne moo di mbalu fëkk jaay ñaan ñi nag ay cliente lañu ñoom dañu ñëwoon fii rek pour tànn li nga xamante ne moo di ay yére jie ji nag doon na gën a ñaaw ndax benn oto moom moo daal di daw daal di ne leen euh, daal di leen def daal di alerté ne leen daw leen rek ndax camion bee di moom amul frein ata bu yegsee dina def musiba donc bu doon oto boobu jiitu camion bi jie ji dina gën a màgg euh, oto bi nag comme ni ngeen ko gisee nii moom bougéegul ba léegi mais def na fi jie ju métti métti métti ata nag looloo xew fii ci Colobane affaire yi nag mi ngi am euh, bi 11h tegalee euh, quelques simili rek euh, ci la camion bi daal di saaraan si fii daal di firay ay nit yoo xamante ne fii lañ nekkoon ci marché bi di daan seen doole dañ leen di gën a jege fil rek jéem leen amal témoignage yi nga xamante ne ñoom fekkee nañ yëf yi wala aussi fii la ñuy liggéey rek ñoom dinañ ci gën a mën a wax rek wax ci li nga xamante ne moo di lu leer donc pour l'instant lañ fi mën a jàpp mooy bilan provisoire bi trois morts la donc ñetti nit rek ñoom ñoo fi ñàkk bu seen bakken ci jéej ji pour l'instant corps yi nag ak blessé yi ñoom daal dinañ leen yóbbu fële ca diwaanu hôpital donc loolu mooy information yi nga xamante ne ruuse dina fi ñu daal di xool ndax dina am ñoo xamante ne dinañ mën def témoignage ci mbir bi ñi nga xamante ne aussi fekkee nañ ko a pour ñu def ci témoignage tey marché bi nag gis nañ ne ñëpp daal di dinañ dakkal li nga xamante ne moo di seen liggéey ak seen njënd ak njaay ndax jéey bi nga xamante ne moom moo daal di wàcc seen kaw camion bi nga xamante ne daf si saaraan def fi ñetti moor

dix heures la heure boobu dix heures. léegi borom camion bi da nelaw wala. a ah, non ñun ñoo looloo ñu jaaxal ko borom camion bi maanaam da doon nelaw wala nelaw parce que maanaam fii nii camion waru fi daw bu baax man li ma gën a jaaxal lool si la bokk parce que maanaam fii mu amee nii nga xam ne day xat ba pare day bëri ay nit maanaam boo fiy jaar maanaam li gën a rafet mooy nga daw ndànk parce que li jaaxal nit ñi loolu la moom da doon da doon nelaw wala qu'est-ce qui se passe parce que fii oto yi fi daw bu baax loolu mooy xëy na tamit fii nekkul maanaam bois boo xam ni maanaam jaay bi dinañu gën a mais maanaam dañoo amul ay marché yoo xam ni mën nañ fa dem teg suñuy bagage di jaay parce que Colobane dafa xat jaay fii gën a luñu buñ sañoon dañuy am ay marché yu yoo xam ne du jige sax tali bi du jige sax oto yi mais xam nga tey maanaam dëkk bi doy na waar tey waar ko nga xam ni maanaam euh, ñi nga xam ni ñoo nekk ci état bi jàppalewuñ marché ambulant marché ambulant lañ gën a woyadiloo moom lañ gën a waylo wayadiloo tab tabu tabu tabu élection jotee wala campagne ñun ñëpp dañ fay daw ñëw ñu leen watal wateel la te maanaam buñ ba nga gañe yow maanaam fàtte nga marché ambulant te marché ambulant li muy dundal ay nit kenn xamul nu mu toll si àdduna kenn xamul ak place yi ngay gis nii kon ñoom dañ leen a war a jàppale ba nga xam duñ nekkati fu mel nii parce que lii nii wóorul boo gisee lii fi am tey nii neexul kenn parce que ñun Colobane la ñuy amee suñu teraanga man mii njool ñëpp xam nañ ma mais man lu ma am Colobane moo ma ko gënal parce que li may terale sama njaboot fi laa koy jële parce que tey daal métti na trop trop trop. dégg nañ tamit si ay wér booy que ne dafa am ay décès ak ay ay blessé mën nañoo xam ñaata moor la am na ñaari nit yi si waaw kenn ki da doon jënd si client boo xam ne da doon jënd si lañ ma wax keneen ki fi lay jaayee miinante mais lay jaayee xam nga ko déggoo li ma la wax daan naa ko romb fii nii rek miinante wuñ quoi dinañ nuyoonte nag dinañ def lépp mais duggante wuñ duggante wuñ trop trop quoi. mais ñun ñun ñëpp benn lañ parce que sama mbokk jaay jaaykat la ba paré nek ko koloban mu nek luma nakari nak nag xamni nakari na ma trop trop trop amna ay blessé amna ay blessé amna ñu ci dam ñaata blessé blessé yi amna na trois personnes yo xamni dañ dañu blessé manam amna ci ñoo xamni metti na amna ci ñoo xamni tamit manam yalla mo leen dimbali ba nga xamni demewul non ci lima xam ma waaw mais ana borom se ana chauffeur bi chauffeur bi ma mom dafa dem dafa dem dafa daw wala dafa yóbbu bop manam daa daa mel maam si si si li maanaam bu ma yoboo ni maanaam moom dafa sauvé boppam quoi daw parce que maanaam def noonu moo gën parce que gars yi seen xol tàng na tàng bu nga xam ni bu ñu ko jàppoon rek du baax parce que loolu sax gënul maanaam ni mu def noonu dem moo gën moo gën parce que bu fekkoon dañ ko jàpp rek gars yi seen xol toll na koo xam ne mën na demee ne nekk ñu sant yàlla na di ñaanal ñi nga xam ni dañ fay génn àdduna yàlla yërëm leen xare leen àjjana si barke Seydina Muhammad di ñaanal ñi nga xam ne tamit dañ fay am ay blessé yàlla faj leen fëgg seen bopp bañ dellu siwaat si liggéey bi. mel ni daan nga fi am wala c'est la première fois daf yi am daf am parce que yu si bëri buñ saaraanee ci rond-point ba la ñuy daw dugg parce que yenn heures yi maanaam bu saaraan am day fekk biir bëri ay nit am na si ñoo xam buñ saaraanee rek buñ lambee feneen gisatuñ dara rek rond-point bi fee xam nga dafa yaat fa la ñuy daw dugg da ngay gis njëriñ jaay yu wàcc si kaw pont bi Sarane nga gis ay oto yu ndaw yu wàcc si kaw pont bi Sarane parce que jamono yële rek benn taximan ne oto bi dafa Sarane tañ ci ko mu tey xam nga li ma la wax mais bu fekkee yenn heure yi nga xam marché bi day bëri nit buñ saaraanee duñu jaar duñ ñaan nag état bi nga xam ne ñoo fi war a ñëwaat ndax maanaam kii fi nekk nii muy président bi moom jeexal na pare na fi président bi fi nekk nii waxatu ñuy waxam ñu ngi ñaan maanaam joomaay bu ñëwee mu utal ñu ay marché ñun waa Colobane. lan ngay conseillé chauffeur yi. chauffeur yi li ma leen di conseillé mooy ñuy daw ak sa mbokku ak sa mbokku ambulant yi nga sama mbokku ambulant yi tamit maanaam bu ñuy taxaw ñu xool fi ñuy taxaw parce que ñun marché bi fi la ñuy taxaw di jaay amuñu beneen marché fi la ñuy jaayee fi la ñuy jaayee parce que bu ñu defalee yeneen marché ñu dem ma leen di ñaan ñuy sóoraale oto di xam fi ñuy taxaw di gestu di xool fu nekk maanaam bëgg a jaay rek bu mu tere nga tayale sa bakkan parce que conteneur buy ñëw damay taw fële taxaw ba mu jàll oto yu ndaw yeeg yu mag yeeg yëpp bu ñuy ñëw damay taxaw damay daw bañ jàll ma ngay conseillé ñi nga xam ne ñooy sama mbokk yi jaaykat parce que ñoom ñoo ma lu ma mën a am parce que samay nawle lañ ñu si bari nekk samay xarit waaw ñuy ñaan daal yu mel nii bañ fee amati ñuy ñaan sëfoor yi buñ fiy jaarati ñu xam ni ñuy def parce que lii rafetul nit xëy fajar déggante waa këram ñi nga xam ne dëkkuñu fi nit xëy fajar génn si njabootam ñëw trente minutes rek ñu wóolu la ni la diw génn na àdduna wala diw faatu loolu non man li ma tudd ñaari ñaari góor ñaari góor waaw xam nga loolu neexul ñuy ñaan yàlla mu bañ fee amati ñu jàppale marché yi nga xam ñi nga xam ne dañuy jaay si territoire yi ñu jéem leen a jàppale yóbbu leen feneen parce que lii nii tey daal Colobane non mairie bi maanaam mairie yi mairie yi dañuy def seen liggéey parce que ñu nit dañ di fay de mairie yi dañ leen di fay juuti place yi di fay patante dañ leen di fay moo tax ñu bàyyi ñu fi de parce que maanaam suñu leen jox sommation pour ngeen jóge bi wax leen ñu bari jëlee nañ leen fi parce que mais boo fi jëlee nit danga nga koy wutal feneen nit boo koy jëlee fii da koy yóbbu feneen parce que nit di yor kër yor ay njaboot di bind dundal lu mat ay cent personnes nga leen dama leen fii jëlee rek bàyyi leen noonu ngeen def loolu kenn du ko nangu nit boo ko jëlee fii ni que dama lay jëlee fii waaye dama lay yóbbu fële dañuy nangu mais dama lay jëlee fii duma ma lay yóbbu du ma lay yóbbu feneen. waxtaan am na seen waxtaan parce que déggoo li ma la wax ambulant man ak ci lasi territoire bi dañ leen a xeeb te ñooñu Sénégal boo gisee ñii ni ñu toogee nii ah ay kër yu rafet lañ dëkk ah di dundal ay cent personnes li war yëpp ñu ngi koy def ay borom jom ñoo fi nekk kon nañ leen di jàppale bu ma la jëlee fii naa la jox feneen loolu mooy affaire loolu mooy affaire bi ñuy ñaan daal mu bañ fi amati quoi. waaw merci jërëjëf.